asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Kole ñu seeti bopp xibaar yi. njiitu réew mi président Adama Barrow ci àllarba bi wax na naka doomi réew yi Gambie ni pour ñu génn ñu dooleel programme health insurance kii bu ñu nekk di def ci biir réewu Gambie bi mu ne mu ngee ñax naka doomi réew yi Gambie ni pour naka ñu génn ñu dem naka ñu bindu ci programme bi nii. si ndaje gu ñu am ak taskatu xibaar yi kilifa yooyo yore compagnie nekk di liggéey si wàllum njënd mi ak njaayub essence gi ci biir réew kambe bi ñoom naka am nañu ndaje di joytu naka jafe-jafe gu ñu nekk di jànkuwanteel jëmale ko ci seen wàllum njula bi ginnaaw ba nguur gi naka wàññee njëgub essence gi ëmpale wuñ ne naka bu ñëwee ci biir àddina si tudd nañ ne Gambie naka bokk na ci dëkk yi dee faral di gën am accident mu tax naka ministre bu ñu denk wàllub dem ak dikk bi mbirub liggéey yëpp nguur gi ak defaraatu yoon yi muy ci Ibrahima Silla ci àllarba bi moom naka ngénte na ab sarta bu mu teral mu ne matuwaay gi daf ko jël rek pour gis ne wàññi na accident yoo xam ne naka ñoo dee faral di am naka ci yoon wi saa yu nekk mbokk yi li doon boppu xibaar yi ñu tax xel bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi fi jot a am ci bëccëg tay bi ëmpale wuñ ne nag fan yi ñu passé génne woon nañ nag ab xibaar di xamal askan wi ne nguurub Gambie bi nag dañu ngénte ab projet bu ñu tëral es ñu tuddee ko nag health insurance scheme ci aadama bi njiitu réew mi président Adama Barrow moom nag ubbi na buntu bi ginnaaw ba mu fa deme nag ak njabootam gi pour bindu sa foofu nag mu gaaral fa kàddu ne mu ngi ñaax nag doomi réewi Gambie ni pour ñu mit ñu génn nag ñu dem bindu ci machine bi ëmpale wuñ ne nag bu njëkk boobu waaye nag amee doom dañ laa jox nag kayti juddu waaye lañ fas yéene commencé mu tax nag ñuy ñaax ñëpp ñu génn nag pour ñu dem bindu tamit nag li nga xam ne mooy health insurance scheme bi dina la mën a taxaw naka ci sa wàllu wér-gu-yaram bu dee yaa ngi ci biir réew mi wala nga nekk ca bitew réew ñi nga xam ne naka ñoo njëkk a bindu mooy njabootum njiitu réew mi président Adama Barrow soxnaam si di fes la di Fatoumatta Bah Barrow la di Sadio Mballo Barrow ak seenub doom yi moom njiitu réew mi ci boppam ñoom ñëpp naka génnoon nañ ci àllarba bi ñu dem naka bindu si programme bi nii mbir mi naka ñu jiitu ci pour wan naka askan wi njëriñ bu ci nekk ñi nga xam ne tamit teewlu woon nañ fa mooy docteur Melvin George ak ki nga xam ne naka mooy Baye Mass Sène doon boot ci bi dooni CEO si National Health Insurance Scheme bi ñii ñëpp naka àndandoo nañ ak kilifa yi nekk di liggéey ci banxaasum nguur gi pour bindu naka ci programme bi ginnaaw ba mu bindoo naka ba pare njiitu réew mi président Adama Barrow moom naka wax na ne matuwaay gi naka bokk na ci mbirub taarix yoo xam ne naka mu ngi ko nekk di def ci biir réewu Gambie bi pour gis na naka digitalise ne lépp loo xam ne rek askan waa ngi koy jëfandikoo mu ajo naka ci wàllu machine bi mu na njëriñ ko ci nekk naka mooy ne bind koo xam ne naka ñu ngi koy def ci machine bi du mus a réer wala sax duñ ko mus a ñàkk mu kóota di wax ne tamit mbir mi naka dañ ko taxawal pour gis ne dooleel nañ askan wi lu aju ci mbiru wér-gu-yaram bi tamit naka ñuy mën a bindu bu fekkee ne naka waaye am na doom wala sax nga bindu mën a am naka sa kayitu juddu tamit naka sa tur mën a nekk naka ci machine bi mu ne lii naka mbir la goo xam ne naka waroon nañ koo def lu yàgg waaye naka réew maa ngi koy soog a am mu ne dañu soxla naka ay lim lim yoo xam ne naka dañ koy mën denc ay ati at mu ne loolu naka njëriñ la bu ñëwee naka ci wàllu wér yaram bi tamit naka bu ñëwee ci dundinu askan wi naka moom nguuram gi ñu jël matuwaay bi pour gis naka indi nañ lu mel nii ngir askan bi naka bindu seen mbirub juddu gi matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis na lim googu dinañ am naka fiñ ko mën a mu continué di wax ne naka lii yokkute bu rëy la bu ñëwee naka ci liggéey goo xam ne nguuram gaa ko nekk di ref surtout ma naka bu ñëwee ci wàllu technologie bi mu ne lii nag weccub doxalin la bu ñëwee ci biir réewu Gambie bi ndax si jamono ji tamit Gambie dinañ mel ni yeneen réew yi lu ñu nekk di def naka ci seen wàllub liggéey bi président Barrow ba tey rek mu continuer di wax ne mu ngi ñaax askan wi pour naka ñu jël programme bi moom la ko seen bopp génn naka ñu bindu mu ne ñun ñëpp nañu génn ci lim buñ ko munee ñu dem naka ñu bindu ndax dafa am solo mu ne naka lii njëriñ la ci suñu bopp tamit dina dëgëral naka suñu mbirub kaaraange bi mu ne ëmpale wuñ ne naka mbiru wér-gu-yaram bi mbir la goo xam ne naka dafa am solo wér-gu-yaram bu fekkee ne naka bindiwul ci lu mel nii ki nga xam ne naka moom la ñu dénk jëwrin bi saytu wàllu wér-gu-yaram bi moom mi wuyo ci docteur Ahmadou Lamine Samaté ci wàllam moom boobu doon gaaral kàddoom wax na ne li war a toll naka si ñetti weer lañu ñu may askan wi naka pour ñëpp génn ñu bindu naka ci programme bi nii mu ne lu tax nag ñu jël matuwaay gi rek mooy pour gis ne ñëpp nag bindu nañ seen mbirub juddu ci machine goo xam ne nag boobu la ñu ICS ngir lim gi nag ñu mun koy def ci benn béréb xam ne tamit nañ ko mën a denc ci lu yàgg mu ne lii nag mbir mu ees la te ñëpp ci war a génn moomale ko nag seen bopp mu ne health insurance scheme bi doon na mbir boo xam ne nag ñu ko commencé te am na yaakaar ne nag doomi réew yi nañu si dooleel bii naka doon na yoon bu njëkk Gambia naka di am digital birth certificate bi mu doon naka health insurance scheme bi lii naka ngénte nañ ko ci biir réewu Gambia bi matuwaay bi ñu jóg ko rek pour gis ne doole nañ doomi réew yi pour ñu mun a bind naka seen kayit juddu ak kayit yooyu wane ne naka ay doomi réew yi leen ba tey tamit ñu ne health insurance scheme bi matuwaay la goo xam ne naka dañ ko jël pour gis ne doomi réew yëpp naka defaraat nañ seen kayit juddu yi si juróom ñetti at kilifa yi nekk di liggéey ci compagnie yi dee jaay ak i jënd diw ci biir réewu Gambie bi ñoom nag ñoo dajee si bureau GCCI bi jaaral ko seen diggante ak taskatu xibaar yi matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis ne xamal nañ askan bi nag jafe-jafe goo xam ne ñu ngi ko nekk di jànkuwanteel jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi surtout ma si jamono joo xam ne nag bi dafa wàññi nag njëgub essence gi ak njëgub gasoil bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore compagnie si jamono ji nag ñu ne ñu ngi oo bi di leen xamal nag jafe goo xam ne nag boobu lañ leen indil jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi ginnaaw ba ñu jéemee fexe nag pour wàññi njëgub essence gi ak it gasoil bi ba tey tamit ñu continuer di wax ne si jamono ji naka ñoom am nañ ab dellu ginnaaw te lii naka ñu ngi ko waxtaanee si ndaje goo xam ne naka ñu ngi ko amee si Gambia Chamber of Commerce and Industry GCCI seeni bureau bu mag ba matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis ne ngir gis naka nguur gi nañ mën a jël matuwaay naka pour wàññil leen boobu la jafe-jafe taxaw leen naka ci mbir yoo xam ne moo leen di njëriñ ci seen wàllum njëla gi matuwaay bi tamit jël nañ ko rek si jamono ji ndax naka ñu ne dafa jot pour ñu génn ñu xamal nguur gi naka mbir yoo xam ne moo leen nekk di sonal ngir ñu mën a bàyyi naka njëgub essence wala njëgub wol bi ci njëg boo xam ne naka ñoom duñ ci daanu ku ñu naan Mamadou Haydara moom mu doon general manager ci banxaasu Jah Oil Company bi ba mu doon gaaral kàddoom si ndaje bu ñu am ak taskatu xibaar yi moom naka gaaral na kàddoom ci taxawaay yëpp ñi nga xam ne naka ñooy yëngu si wàllum jula gi mu ne naka fuel bi ëmpale wuñ ne naka ci weeru august ministre bu ñu dénk wàllum jula gi ak doxalinu koppar gi ci biir réewu Gambie bi ñoom ñoo lëkkaloo ak ministre bu ñu dénk wàllum diw gi ñu jël naka matuwaay gi am waxtaan jaaral ko seenub diggante ak ñi nga xam ne naka ñoo nekk ci compagnie de dee jaay diw gi ñu tëral naka yenn sata tëral tamit ab comité buy saytu naka li nga xam ne moo aju ci wàllum jëlo gi mu ne waaye naka si jamono ji matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour wàññi li nga xam ne naka mooy fuel bi pour jàppale naka askan wi mu ngi leen di sonal ñoom ñoo xam ne naka ñoom ñooy jëlo gi mu ne njëgub essence bi naka nekkul ne ñoom ñoo jóg rek yokal ko seen bopp waaye naka si fuñ ko jëndee sa foofu la seere tamit naka lañ dee am jafe-jafe pour isi ko naka ci biir réew bu Gambie bi mu ne looloo tax naka ñoom ñu génn pour xamal nguur gi ne si jamono ji naka mu ngi leen di sonal ngir ñu mën a fexe naka pour delloowaat njëgub essence bi mbaa gasoil bi si njëg bi nga xam ne naka foofu la nekkoon mu ne nguurub Gambie bi naka dañu war di bàyyi xel ci matuwaay goo xam ne naka ñu ngi koo jël jëmale ko ci wàllum njula gi ngir ñu bañ a sonal naka ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllum jënd meeg njaay mi mu ne naka nit ki mun nga koo wax naka pour mu wàññi njëgam waaye naka na tolloog anam goo xam ne naka na ci am as tuuti mu ne boo demee naka ci marché bi nga fekk naka njëg bu ñoo jaayee juróom ñaar borom bitig bi di ko jaayee fukki dërëm mu ne ko doo ko mun a forcer naka pour mu tëj njulaam gi mu ne loo mun a def rek mooy nga waxtaan ak moom seet naka naka ngeen a mën a tëralee ab sarta pour gis na naka jéem ngeen koy wàññi mu ne looloo tax naka ñoom ñu génn si jamono ji ñu ngi oo naka ministre bu ñu dénk wàllub koppar gi ak doxalinu koppar gi di oo tamit jëwriñ bu ñu dénk wàllub diw gi pour ñoom ñëpp ñu dajaloo waat waxtaanee mbir yoo xam ne naka moo aju ci wàllum jula gi ngir ñu bañ a am naka ab jafe-jafe jëmale ko naka ci wàllub koppar gi tamit naka mu ne si jamono ji ñoom ñu ngi ci dund goo xam ne dund gu métti la ndax ab dellu ginnaaw bu baax lañ am naka ci seen wàllum jula gi mu ne te génn gis ne saafaraal nañ naka bi la jafe-jafe balaa arjuma muy war a tombe naka juróomi fan ci weeru august ci at bi ñu nekk mu ne lu ko mooy naka mbirub koom-koom gi dinañ ci am naka ab dellu ginnaaw torop nguurub Gambia bi naka ci loxo goo xam ne jaarale nañ ko si jawrin bu ñu dénk wàllub koppar gi ak doxalinu koppar gi ñoom naka ñu ngi amoon ab waxtaan jaaral ko seen diggante ak ministre bu ñu dénk wàllub diw gi ak jaayib diw gi ak it banxaasu puura bi ndaje gi naka dañ koy faral di def naka weer bu nekk pour waxtaanee lu aju ci mbirub diw gi lu ci mel ni essence gasoil ak it yeneen diw yu ñoo jaay ci biir réewu Gambie bi tamit naka matuwaay gi dañ ko di jël rek pour gis na ñoom kilifa yi neen wecci wante nañ xalaat waxtaanee naka mbirub jula gi surtout ma compagnie yoo xam ne naka ñoo yëngu ci wàllub diw gi mu continué di wax ne tamit si jamono ji nguurub Gambie bi naka lu ñu wàññi si njëgub essence gi doon mbir boo xam ne naka mu ngi leen di sonal ndax naka léegi benn litre essence mu ngi dem naka ba si juróom fukk ak juróom te gasoil bi mu ngi si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne waaye naka nguur gi si biir réew mi ñu ngi koo jaayee naka juróom-ñaar fukk ba si ñett den ba si juróom-ñaar fukk ba si juróom ñu ne lii naka mu ngi leen di sonal te mu ngi leen di indil naka ab dellu ginnaaw ci seen wàllub jula gi ëmpale wu ne naka mbasu coronavirus mu lëmbee naka àddina si njula yi bari naka ñu ngi amoon ab dellu ginnaaw jëmale ko ci seen wàllum jula gi léegi nga xam ne naka fitna mu ngi ci diggante dëkku Russie bi ak Ukraine tax na tamit naka jafe-jafe am naka ci wàllum jula gi naka bu ñëwee boorub essence gi mu tax naka njëgub essence gi di gën a yokk naka ci biir réewub Gambia bi tax na tamit ñi nga xam ne naka ñoo di jëfandikoo essence gi ñu nekk di joytu yokkute goo xam ne na jaaykat yaa ngi ko def ci wàllub essence gi ompale wuñ na nag réewub Gambia bu ñëwee nag ci dëkk yi nekk ci biir àddina si bokk na nag ci dëkk yi jiitu bu ñëwee nag ci dëkk yi dee faral di am accident saa yu nekk looloo tax nag kilifa gu ñu dénk jëwrin bi saytu wàllub dem ak dikk bi mbirum liggéeyub nguur gi defaraatub yoon gi muy wuyoo ci Ibrahima Silla moom nag ci àllarba bi ngénte na nag ab sata mu tëral jëmale ko nag ci wàllub yoon gi matuwaay gi mu ne daf ko jël rek pour gis ne wàññi nañ nag accident yu dee faral am ci yoon yi ak it jafe goo xam ne nag askan waa koy jànkuwanteel bu ñëwee nag ci wàllub dem ak dikk bi matuwaay goo xam ne naka National Road Authority jël nañ ko jaarale ko seen ak Road Safety Technical Working Group bi ci atum 2022 tëraloon naka ab sarta mi doon ay sarta ak it luwaa yoo xam ne naka dañ ko tëral pour saafaraal jafe-jafe goo xam ne naka askan waa koy jànkuwanteel ci wàllu yoon gi ñu ne li war a naka si téeméer juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay misaal naka la ñu fas yéene def naka ci yoon wi mi war a wane naka place yoo xam ne foofu la moto yi ci place yi ñoo mën a wàññee seen tànk ak fu ñoo a yokkee naka seen tànk ñu ne matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis ne jéem nañoo wàññi naka accident yoo xam ne ñoo dee am ci yoon yi bu ñëwee naka ci biir àddina si ñu ne Gambie naka jiitu na ci dëkk yi dee gën a faral di am naka accident looloo tax naka Ibrahima Silla moom mu ne dafa am solo si jamono ji pour naka ñu xamal askan wi njëriñ goo xam ne naka moo nekk ci luwaay ñu fas yéene tëral naka ci yoon wi tamit ñuy bàyyi xel tab la naka yu dee nekk ci yoon wi ndax luñ fa dee bind naka ab misaal la accident yu dee faral am ci yoon wi ñu ngi si joxoñ baaraam naka ñi nga xam ne ñooy driver yi ëmpale wuñ ne tamit ñu bari nag accident yi de faral am ci yoon yi ñu ngi si joxoñ baaraam ñi nga xam ne naka ñooy driver yi di wax ne naka ñoo de def nu leen neexee ci yoon wi waaye naka ku ñu naan Mamadou Senghor moom mu doon managing director ci bànqaas National Road Authority bi moom naka wax na ne sign yi naka lañ war di bàyyi xel mi maanaam misaal yi ñu dee def naka ci yoon wi mu ne driver naka dañ ko war a miinal seen bopp pour mun a teggi naka baaraam yi tuuma yuñ leen joxoñ Mamadou Gassama moom mu bàyyeekoo naka si World Health Organization bi bokk tamit si mbootaay yëpp Road Safety Working Group bi moom naka rafetlu na matuwaay koo xam ne naka ministre bi jël na ko pour jéem a wàññi naka jafe-jafe goo xam ne askan waa ngi koy jànkuwanteel ci wàllu yoon bi Nuha Jabe moom mu teewaloon fa naka Gambia Transport Union moom naka wax na ne jafe-jafe goo xam ne naka moo nekk di am ci wàllu yoon wi surtout ma naka accident yi dee gën a faral di am mu ne naka bañ ko bàyyee xel dañu gis ne tabla yi ñu dee def naka ci yoon wi di wane naka ay misaal driver yi naka duñ ko dee bàyyee xel tamit ñu bari foog nañ ne naka xamuñ ko mu ne looloo tax naka mu ngi ñaax driver pour naka ñuy bàyyi xel yoole table banxaasub National Road Authority bi ñoom naka ci lëkkaloo ñu defar kilifa yi si jamono ji naka ñu ngi fas yéene defar ay tabla yu bari def ko naka ci yoon wi muy tabla yi woon naka mandargaab yoon wi ak it naka sart yi ñoo mën a jël jëmale ko ci mbirub yoon wi ba tey tamit ñu ne naka tabla yooyu nga xam ne ñu ngi ko nar def ci yoon wi wane naka ay mandarga dina jàppale naka driver yi pour ñu xam naka nu ñoo doxalee ci yoon wi tamit naka loolu am nañ yaakaar ne dina tax naka mu wàññi accident yu de faral di am naka ci yoon wi wàññi tamit jafe-jafe goo xam ne naka askan waa ngi koy jànkuwanteel bu ñëwee naka ci wàllu dem ak dikk kuréelub Q Group Foundation bi ëmbale wuñ ne naka dañu am ay banqaas yu bari yenn yi di yëngu ci wàllum jële gi am ci benn banqaas koo xam ne naka banqaasu ndimbal la boobu naka moo dee taxaw askan wi lu aju naka si jafe-jafe ñu nekk di jànkuwanteel tamit naka jàppale askan wi lu aju naka ci seen wàllub dundoo banqaas boobu naka ci fan yi ñu nekk ñoom ñoo génn naka pour jàppale ñi xam ne naka ñoo am jafe-jafe jëmale ko naka ci taw bu am doole bu wàcc naka si njeexantalu semaine bu ñu passé banqaas bi tamit yemu ci loolu rek dañ dee dooleel wàllu wér yaram bi njàng mi tamit naka dañ dee taxawu askan wi ci mbir yoo xam ne naka moo leen di indil ab wéccite ci seen wàllu dund te naka doon na banqaas boo xam ne naka réew mi yëpp lañ ràññee ci liggéey gu rafet goo xam ne naka boobu lañ nekk di def banqaas bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour dooleel askan wi lu aju naka ci seen wàllu dund gi si fan yi naka génn nañ naka pour jàppale nit ñoo xam ne naka ñoom ñoo yàqule ci taw bu wàccoon si njeexantalu semaine gi seen nemmeeku gi naka ñu ngi ko commencé si diwaanu West Coast region bi ku ñu naan Célestine Diadio moom ak njabootam gi bokk na nag si ñu gën a yàqule bu ñëwee nag si taw bu wàcc si njeexantalu semaine gi te ñu dëkkee nag sa Tuujeereng moom nag wax na ne si jamono ji ñàkk na léppam si mbënd mi mu ne taw goo xam ne nag moo wàcc samedi ci guddi yàqal na ko moom ak njabootam gi mu ne si jamono ji nag ñoom ñu ngi soxla ndimbal mu ne nag yàqute goo xam ne nag am nañ ko si jamono ji nag tax na moom ak njabootam gi ñu ñàkk lépp amuñu nag fu ñoo jonkoon tamit nag ñu metti lu dund di ko naqarlu mu continué di wax ne tamit mu ngi jaajëfal naka banxaasub Q Group Foundation bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour taxawu leen ñoom ak seenub dëkkandoo gi mu ne naka si jamono ji moom ak njabootam gi amuñu fenn fu ñoo dem amuñu fenn fu ñoo fanaan tamit naka amuñu benn lekk wala sax dund goo xam ne mun nañ koo dundee mu ne lépp la ñuy ñàkk naka mu ne waaye mu ngi jaajëfal banxaasub Q Group bi ci ndimbal goo xam ne naka yóbbul nañ leen ko tamit naka mu ngi leen di jaajëfal ci taxawaay goo xam ne naka ñu ngi ko def askan bi yeewoo ci biir réew mi ne naka mu ngi leen di jaajëfal ndax naka si jamono ji kontaanteem rek la moo nekk di wone ndax naka dafa soxla ndimbal te bi taxawu nañ ko naka si jamono joo xam ne mu ngi ko soxla mu ne mu ngi leen di ñaanal yàlla pour yàlla jàppale leen ci liggéey goo xam ne naka boobu lañ nekk di def mu ne moom ak njobootam gi yàgg nañoo dëkk sa foofu li war a toll naka si juróom benn at am nañ ko naka foofu sa tuujee rek mu ne waaye naka fasam yàqute gu mel nii mosuñu koo dundu Sabro Food naka Q Grow Foundation bi tamit yóbbu nañ fa ay ndimbal tasaare ko naka si njaboot yu bari ba ñu yeggee naka Sabro Food Q Grow Foundation bi ñoom naka dimbale nañ njaboot yu bari yoo xam ne naka ñoom ñoo yàqule ci taw bu wàcc naka si njeexantalu semaine bu ñu passé ku ci mel ni Sale Dieng ak Mohamed Lamine Jawne ñoom ñoo am naka koppar gu toll si juróom fukki junne dem ba si ñaar fukki junne ak juróom ñoom jaajëfal nañ mbootaay yëpp Q Group bi ci taxawaay goo xam ne naka jël nañ ko pour dooleel leen ñu leen di jaajëfal tamit ci ndimbal goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di def njaboot joo xam ne naka ñoo nekk di yeewoo sa West Coast Region ñeneen ñoo xam ne tamit yàqule nañ te ñu am naka ci ndimbal gi mooy njabootub Gajaga gu nekk sa Mariama Kunda njaboot jooju naka am na ci kenn koo xam ne naka am na gaañu yu métti jëlee ko naka ci taw gi moom naka mu doon koo xam ne naka niig ba daanu ci kawam kii group foundation bi ci ndimbal guñ leen jox jox nañ leen naka koppar gi war a toll si juróom fukki junne Omar Lat moom mu teewal foofu noonu banxaasu kiw groupe bi moom naka masawu na ñi nga xam ne naka ñoom ñoo yàqule di leen xamal ne naka banxaasu kiw groupe bi ñu ngi leen di masawu tamit naka dañ taxaw pour dooleel leen si jamono yi nga xam ne naka ñu ngi dund dund ko metti kiw groupe foundation bi ñoom naka doon nañ banxaas koo xam ne naka ñu ngi registré wu si atu 2016 te naka banxaasu ndimbal la bu nekk di liggéey naka si ron jëwriñu kiw groupe company yi ci ndimbal goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di def ci biir bu Gambie bi banxaas bi naka ñu ngi taxaw pour indi wéccite ci dundinu askan wi tamit naka dafa bokk ci sarta yoo xam ne naka ñu ngi ko tere ci wàllum liggéey bi mooy pour indi naka ak wéccite ci dundinu askan bu nekk di yeewoo ci biir réew bu Gambie bi mbokk ba tey rek ci taw goo xam ne wàcc na si njeexantalu semaine gi bayeekoo ci samedi gi ñëw nag ba ci dimanche gi ëmpale wuñ ne nag ñu bari ñoo yàqule ñoo xam ne nag ñu ngi yeewoo ci tund yu nekk ci biir réewu Gambie bi surtout ma ñoo xam ne nag ñu ngi dëkk ci gox goxaan yu sori yi sa diwaanu Basse nag am na ci njaboot yoo xam ne nag yàqule nañ jëmale ko nag ci taw gi si jamono ji njaboot yooyu nag ñu ngi jooytu di wax ne nag ñàkk nañ seen kër yi seen dund gi tamit nag seen njaboot gi si jamono ji nag ñu ngi soxla ndimbal amuñu nag fu ñu jonkoon taw woo xam ne naka wàcc na daanaka si juróom ñaari fan mu ngi naka ci xibaar yoo xam ne taskatu xibaar yaa ngi ko nekk di génne ak itamit mu ngi jiitu ci xibaar yoo xam ne naka boobu la askan wi nekk di waxtaanee bu ñëwee naka ci buntub xarala yi ñi nga xam ne naka ñoo nekkee sa diwaanub URR bi ñoom naka ñu ngee ne yoon wu ees goo xam ne naka boobu lañ leen sampal moo leen indi naka jafe gi ndax yoon wi naka génne wuñ fa place goo xam ne naka foofu la ndox mi di jaar àllarba ci suba ñi nga xam ne naka ñoo nekk di yeewoo ci dëkk bu ñu naan Kaaba Kaba Samba Takko ba seen Sending ak Jiroba ñii ñëpp nag ñu ngi joytu ne ndox mi nag yàqal na leen lu bari bu ñu sukkandikoo ci askan bu nekk di yeewoo ca boor yooyu ñoom wax nañ ne si juróom ñeenti at léegi mosuñoo am naka façon yàqute gi ñu ne waaye naka bañ leen sampale yoon wu ees gi ci lañ am naka jafe-jafe gi ndax naka ubbi wuñ fa ay place yoo xam ne naka foofu la ndox mi di mun a jaaree ñi nga xam ne naka ñoom ñoo fa teewlu kilifa goo xam ne naka moo fa yegg muy gouverneur bu URR bi muy wuyoo ci Samba Ba mo Njo ñi ñëpp naka yegg nañ pour masawu naka njaboot yu yàqule tamit naka xamal nañ la si jamono ji nga xam ne naka ñu ngi soxla ndimbal ñu ne ñu ngi oo naka nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci banxaasub nguur gi pour ñu jël naka ab matuwaay saafaraal ñi naka seenub jafe-jafe gi ci num gën a gaawee ñi nga xam ne naka ñoom ñoo yàqule si jamono ji naka ñu ngi wane ñàkk kontante di naqarlu naka jafe-jafe gu daanu seenub kaw tamit naka ñu ngi ñaxtu pour kilifa yi ñu taxawu leen naka ci num gën a gaawee bu ñu ci banxaas goo xam ne naka ñoo nekk bi saytu wàllum ndox mi ñoom naka wax nañ ne nawetub atum ren bi naka ndox mi lu moo wàccee naka dina yem waaye naka bu ñu bàyyee xel naka ci guddi yu ñu passé ñi nga xam ne naka ñooy weeda forecast bi ñoom it génnoon nañ naka di wax ne ndox mi naka dina bari si jamono ji naka ñaari mbir yooyu askan waa ngi dund ndax naka ndox mu bari bi mu ngi indil naka jafe ñi nga xam ne ñoo nekk di yeewoo ci tund yi nekk ci biir réewu Gambie bi te si jamono ji naka ñëpp a ngi soxla ndimbal jëmale ko naka ci nguurub Gambie bi mbokk yi liee doon naka xibaar yi leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata lii ngeen di si doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu mel ñu ñeendoog jàmm jër ngeen jëf ci topp bi wasalaam